àndee bu nekk dañuy am doole te combat bi mooy daj dëpp gi parce que lu mën di xew muy nga am ndam moom muy mu am ndam dootoo bëri ak ne combat bi wàccaay la bu am solo boo xamante bi nii da la fay jëlee arène non saa yi comme li nga wax rek sama combat ak Eumeu Sène est-ce que defuñu woon mille pour cent sax combat Sokh ak Franc moom tamit ñaara pour cent la boo ne deux pour cent ba tax na ñu ànd leen di ñaar bu baax a baax parce que c'est l'union fait la force li yëpp espoir la day jeex t'as compris li ma leen di souhaité lu ma leen di ñaanal mooy ñu ànd ñu nekk benn espoir day jeex live bi dafay continuer leen wax yàlla na leen yàlla defal jàmm ñoom ñu ñëw nekk 1000 pour cent ci la defet bi da gën a metti incha allah parce que ñoom ñëpp ko yëg bu dee cent pour cent pour cent ñuy toog ci lu ko naan nii mais da ngay bëgg ñoom ñëpp ñu ñëw incha allah nekk say maanaam nga daal leen jël bu rëy da ngay confirmer huitième bi taxal ko